maaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg Sénégal 7 ñu ngi am mbégte euh, teewaat fi ci entretien spécial bi nga xam ne euh, dañu leen ko proposé ngir waxtaanee wàllu actualité bi ak li nga xam ne moo am tey fële ci assemblée nationale nekk euh, événement yoo xam ne c'est en quelque sorte benn tâche noire ci deuxième institution bu réew mi muy assemblée nationale dinañ waxtaanee également ci li nga xam ne mooy. rencontre bi dox diggante njiitu réew mi Macky Sall ak euh, daara yi ñi nga xam ne ñuy kuréelu daara yi euh, ak yeneen ponk yoo xam ne dañuy am mbégte euh, waxtaan ci ak suñu invité bi ñi xam ne am nañu mbégteeg honneur dalal ko fi di sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sénégal 7. maa ngi lay fay maa ngi lay ziar. di mm-hmm. sant ñëpp di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp. subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim hamidtu ma yaazimuni min ad-darar min kulli shanbin wa bashar ñu ngi lay dalal kon di am mbégte euh, am sekk ak yow waxtaan bi actualité bi nga xam ne mën nañu fas yéene tàmbalee nag mooy maraton budgétaire bi nga xam ne euh, mu ngi daw jamono ji sa assemblée nationale xam ngeen ko euh, muy euh, département ministériel yi nga xam ne à tour de rôle dañuy jàll foofee ca kanamu député yi examiner seen projet de budget bi nga xam ne moom lañ leen di jox ñu mën a doxal seen liggéey ci diirub atum 2023 bi waaye bëri na événement yoo xam ne am na fa ci assemblée de rupture bi nga xam ne nee nañu Euh, moo am foofee ca quatorzième législature bi d'abord sëñ bi euh, regard bi nga xam ne moom ngay jeté euh, ci travaux yi ba mu tàmbaleeg tey ak assemblée de rupture bi nga xam ne annoncé woon nañ ko ñu bëri amoon ci yaakaar ban regard nga ciy jeté. regard de regret d'abord. parlement dafa am solo ci réew. mooy ñi nga xam ne sénégalais ñoo leen tànn pour que ñu nekk leen pour que laajal leen seeni droit même pouvoir exécutif bi ñu bi ñu fal nga xam ne dañ ko fal dénk ko pour mu doxal assemblée lañ chargé pour mu contrôler leen hmm. non seulement pour mu contrôler leen mais aussi pour que mu critiquer leen hmm. mais aussi pour mu orienter leen dans tout ça nag su fekkee ne su fekkee ne ne ñoom ñi war a def loolu surtout xam Sénégal nekk réewu moral nekk euh, réewu dignité nekk réew bu am leadership ci Afrique ci àdduna bi yëpp tey ñi leen représenté ñoo am comportement bii c'est une honte pour toute l'Afrique c'est une honte plus particulièrement pour les Sénégalais surtout pour les politiques surtout la jeune génération bi ñu nekk nii nga xam ne si ñu ci ëpp tey ay jeunes lañ ñu critiqué woon treizième législature bi fi nekkoon terriblement, euh, ba traité leen tous les noms d'oiseaux voilà ces gens la yi doon critiquer te ñoo nekk nii. Mhm. mais est-ce que est-ce que li nga xam ne moo fa xew itam nekkul luy refléter tension bi nga xam ne moo am jamono ji ci biir euh, penc yi ci askan wi. tension bi bëri na euh, xeexoo bi bëri na euh, violence verbale bi bëri na des fois violence physique opposition pouvoir waaye ci biir askan bi seen biir euh, tension bi itam bëri na fa am beaucoup d'interrogations yoo xam ne jamono ji amagul réponse yenn nekk blocage jàppoo ne la nekk assemblée nationale moom mooy reflété wu un peu ci biir société bi effectivement quelque part mais rien ne justifie ce qui se passe aujourd'hui tey dama gis c'est une honte parce que ku weq ku weq jigéen mm. ñu ñaan dafa ëmb wala ëmbul amul justification mm-hmm. te ñi ko def je constate une terrible hypocrisie parce que nee nañ kooku dafa waxoon lu ñaaw ci Serigne Moustapha si atalallahu baqa la ko fi ñoom parmi eux Guy Marius Sagna récemment wax na wax yu doy waar ci sëñ Bass Abdou Khadre te sëñ Abdou Bass Abdou Khadre nekk waajur ci sëñ Moustapha Sy te ñoom ñii tey doon kaas ñoom ñoo doon jàppale Guy Marius Sagna ci loolu di ko défendre voilà l'hypocrisie voilà aksaru naas baayaxu diin bi dinaar euh, maana dinaar huna kullu manfaatin dunyawiya euh, borom xam ñu ne ki gën a perte ci àdduna mooy ki échange toujours diine ci ay intérêt ça veut que quand bu la bu la arrangé fii nga taxaw teg diine bu la arrangé fële nga noppi ne non république bi ñu waxee sañ Bass Abdou Khadre on a évoqué la république on a ñoom dañu défendre Guy Marius ne oui parce que république la te sëñ Bass Abdou Khadre amul parti politique te sëñ Moustapha Sy dafa am parti politique te ñoom ñii ko doon ñoom ñii ñoom ñii chargé ndaw si tey ba àgg ci dóor ko ñoom ñoo doon défendre Guy Marius Sagna voilà l'hypocrisie voilà ce que je dénonce ce n'est pas parce que c'est une femme jigéen ak góor ñoo bokk parce que charge ci ci ci ci l'islam man na amila saalihan min dakarin aw unsa hmm. toujours suñ borom fu leen wax ñoom ñaar la yemale mais soxna bu ëmbee nag ci diine ak ci l'islam du atteem moom mooy dox mais atteem ki mu ëmb mooy dox tey bu doon ko ñu rey ci l'islam bu ëmbee duñ ko rey su koy nàmpal ci l'islam duñu duñu la rey li feeg li feeg ëmbi woo li feeg nàmpal woo pare donc kon am na circonstance yu jigéen di toll quel soit responsabilité bu mu am wala juum bu mu juum wala euh, euh, degré wu faute bu mu def ne mérite pas certain certain traitement il est hypocrite euh, ñi koy tenté défendre no ceci am nañu yàlla teral fii ñoo xam ne dégg na un député di nañu yàlla teral ñoo xam ne ku leen attaqué leen gis lii mais ñu yàlla teral bari na y compris sëñ Bass Abdou Khadir alors ci ci violence yooyu nga xam ne gis nañ ko ci assemblée nationale certainement au-delà de l'immunité parlementaire flagrant délit la Ah oui, oui, non, j'attendais demain la réaction du, vraiment de la chancellerie. parce que euh, attendons d'abord la certificat médical ce qui ce qui va se passer xam ah, nga man bokkuma ci benn bokk yaakaar. man su ma sañoon tey Macky Sall du fi fanaan. Mhm. loolu mooy suma yéene. baa ngir bañ ko moom nag waaye ngir toxin bu bon bi muy doxalee et puis ci biir émission bi je vais développer je vais développer quelque part sa responsabilité aussi. parce que